إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون bokk jullit yi bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki ci commission culturelle et scientifique muy commission bu yaakaaru boo xam ne Touba ca kanam daf ko tànn teg ko ci loxo yi sëriñ daara yi boobaak léegi nag ñu di ci def liggéey bu am solo lool mbokk yi ci taxawu daara taxawu ñooñ daara waaye taxawu sëriñ daara yi ci di leen tàggat ci di leen jàppale ngir ñu gën a jekku liggéey bu am solo bii nga xam ne ni Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul la ñu koy defal téeméeri sëriñ Daara taxaw nañ leen ngir gën leen a soññ ak tàggat leen ci liggéey bu am maanaa bi nga xam ne moom la ñuy def di jàngale alquranul karim ñooñu nag lañ bëgg a sargal gaaw bi ñu jëm incha allah ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai muy programme bu am maanaa boo xam ne nii danañu dajaloo kañ leen sargal leen jox leen seeni diplôme waaye programme bu yaatu la ak ay mbébét yu yaatu yoo xam ne commission scientifique et culturelle ci njiital Serigne Mamor moom Serigne bu sa Dieng ak bokk yi nga xam ne ñoom la ndal ci liggéey bi. Serigne Daara yi nga xam ne Touba ji kanam dafa am yéene féeti leen fépp ci jëf ak taxawu leen ci gépp wàll goo xam ne nii mën naa ñoŋal seenub liggéey muy barab ya ñuy jànge lañ fa soxla te mënuñu koo ñàkk ñu fekk leen fi di leen dimbali. waaye ñoom itam ci seen bopp di leen yokkal xam-xam ci liggéey bi nga xam ne sëñ Tuubaa lañ koy defal muy muy muy am njàngale. Äh, at mu jot ñuy tànn ab lim bu am solo ngir yokkal leen seen xam-xam li ñuy wax tàggat leen äh, tàggat googu itam danañu xool jamono bu jot äh, matières yi nga xam ne képp kuy jàngale alxuraan boo ko xereñee dana la dimbali yow miy jàngale dana dimbali ñi ngay jàngale. tàggatin googu itam dañuy leeral ne lépp tubaa ci kanam moo ko def. Euh, moo moo moo jël financement woo sëriñ daara yi nga xam ne lépp lu ci waay am rek euh, majaalan la maanaam gratuite lañ la ko defal amul dara lu ci kenn toggoo lu dul euh, génne sa kër ñëw ci barab bi ñu lay tàggate. ba loolu amee itam téeméeri sëñ daara yooyu ñu bëgg leen a dajale jox leen maanaam shahada yi wane ne li ñu doon def ci ñoom jàpp nañ ne mën nañ ko wéyal ci gone yi nga xam ne ñoom la ñuy jàngal. loolu nag moom lañ fas yéenee amal samedi bi di ñëwul tolloog le 22 euh, ci mois d' avril bi ñu nekk ñu koy amale ci kër sëñ Touba gi ci Daaru Manaan euh, bu 15 heures jotee ñu di ci woon ak mbooleem koo xam ne nii ñooñ alxuraan nga moo xam borom daara nga moo xam sëñ daara nga moo xam dongab daara nga moo xam waajuru dongab daara nga euh, di xamit ne thème bi nga xam ne moom lañ fa bëgg a waxtaanee day thème bu ama am solo boo xam ne itam man naa ne dafa bokk ci formation bi ñu leen doon formé Euh, muy muy muy àq ak yelleefu dong daara ak sëñ daara yi koy jàngal ci ci biir euh, euh, xaanoonu Sénégal loolu Assane Dioma Ndiaye moo ko moo koy def. li ko waral rek mooy bisa bu ñuy taxawal ngir sargal sëñ daara yoo xam ne dañoo àndal ñun formation lu tolloog weer yàlla dogal mu jeex alhamdulilah ñu bëgg nag taxawal bis sargal leen jox leen seeni ay diplôme yoo xam ne day wane ne ñi bokkoon nañ ci formation bi. ñu war koo def nag euh, gaaw bi ñëw di le 22 ci weer bi ñu nekk di fàttali rek li suñu sooy wax léegi mooy formation bi day lu am solo loo xam ne jar naa bàyyi xel bu baax a baax ndax matière yi ñu ci def ñeent la yoo xam ne jàpp nañu sëñ daara yépp da koo soxla mun ko ñàkk bi ci njëkk mooy tajwid tajwid mooy ku ko xamut alxuraan doo ko ndax mooy ahkaam yi ñu koy jàngal alxuraan karim te yàlla dafa wax ne waratil quraan tartiila la wax bu fekkee jàngu wit doo mën a taj tajwid nag bu ñu ko waxee du njàngum naaral rek waaye njàngum alxuraan la mu wér mooy génne xaraf yi ni mu war a génne ak axkaa bi ñu ko war a jàngee donte sabaat neexul sax waaye loolu moo tax tax taj bi jóg fii nag boo waxee rek ñaari dañu daan wit mooy naaral déedéet du naaral waaye mooy njàng mu yàlla ñu war a jàng alxuraan karim koy bi ci topp mooy ilmu nafs boo jàngalee xale dafay baax nga xam seeni wuute ci wàllu euh, li ñuy wax tabia maanaam furuq fardiya gone gi mën naa gaaw a mokkal gi yéex a mokkal te fekk ne euh, xëy na ñoom ñaar ñëpp ku ne sam xel moo toll foofu te Bass de tukki wax ak sëñ Sëñ Mbàkke bu sëñ dafa waxoon ne gone boo ko joxee lu lu tolloog am xelam di ko soññ muy jàng bu taree mokkalu tuumaalal xel ma loolu moo tax bàyyi xel la ci njàngale loolu tamit dafa yu mel noonu rek moo am ci ilmu nafs nga xam ne ki ko xam dana tax mu man a gone ne man laa traité te sa traitement bi yelloo ak sa xel bi ci topp mooy turuqu tahfiz mooy séddale kaamil bi ba nga xam ne man ngaa wax kat ne gone gi bu fi jàngee nangami weer dana firi ji bu jàngi njàng mi dana mokk alxuraan ba ba lépp nekk nga xam ne dak mën nga bu tàmbalee bi sàngam ci at sàngam bu demee ba at sàngam ci moyen de alxuraan dana mokk incha allah bi topp mooy idaara mooy saytu saytu mënut a ñàkk ci ci lu ma doon ci àdduna donte kër da ngaa yittewoo saytu noonu la ko daara yittewoo ñu gis ne am na ci yoo xam ne ci ay njuumte ñàkk xam saytu rek moo ko waral waaye bu ñu xamoon saytu su boobaa dana leen dimbal baax a baax ci seen wàllu njàng alxuraanul karim kon yii mooy ñeent nga xam ne moom lañ ci jàngal sëñ daara yi ngir ñu mën koo saytu mu leen gunge ci seenum jàngale ñu bëgg tam incha allah boole ca euh, wax waxtaan ak ñoom ci wàllu loi ñu xam seen i àq ak seen i ci réew mi ndax daara yi bëri na yoo xam ne yu ciy xew ci ay njuumte yoo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci ñàkk xam loi ak ñàkk xam ne war dox euh, doxaleen léeg sax ñoom la ñuy tooñ waaye ndegam xamoo rek bu ñu tooñ sax doo xam ne dañu laa moo tax ñu bëgg leen defal benn ci wàllu loi boole ko ci boobu noonu tëjee ko ko te ndax ndax sax alhamdulilah jàll nañ benn boo xam ne ñu ngi def ci wàllu wàllu faj wàllu maanaam médecine te ñëpp jàpp xam nañ ne am na njëriñ loolu bu ñu ko defee suñu daara yëpp jëriñu nañ ci kon li daal mooy programme bi di ci woo ñëpp nag ci tur suñu Abibu mu suñu Fallu suñu Ibrahima Abibu suñu Abibu mi nga war a nekk gaaw bii nu jëm ñu war koo def fii fii ci eh, kër Sëñ Touba gi mu war a tàmbali 15 eh, heures ba 18 heures wajalilaayi maskani Touba misras mi abi jaayi xayri ma nabaat